sëñ Malick Ndiaye di wër kër yi Ndiaye yëpp kër yi kilifa yi ki ñu yaakaar ne ki ñu xeet si tey ëllëg ne ku jul toog sax na nga wuy eh, bi mu ba mu agsee ba ba jub ko sëñ Malick Diaw ba ba romb ko sëñ ñëw dégg woote bi mu ne woote boobu sëñ Bamba bi woote de moom wujjul ku wujj da nga dem sa waro loolu sëñ Malick Diaw wax woote boobu sëñ Bamba bi woote man Malick Diaw su ma wujjul ku wujj da nga dem sa waro ba njëkk ba takkusaan mu tàmbali ay béy yoo xam ne yi da ko bëggoon yu bari far nag te waxtu jot na Eh, sëñ bi bi mu génnee na laaj ma sàmm sëñ ma sàmm ko ndax mbooloo mi ñëpp yow na mu ne ko am ah, mbàkki ñu mu ne ma yow dikk na ñu jox jox jox jaati ñu ne ah man daa mel ko nañ ko gàttalu sëñ sëñ ma sàmm ne nañ ko gàttalu ñu daal koy gàttalu ñu daal fekk ci fekk muy def bayit yi ñu ne ko sëñ bi ne yow yow yow dong lay xaar mu daal di bëri bàyyi bàyyi lu mu ko ci fo ci a dugal ci ko bàyyi naa ne ci ci man nga ne oh. mu ne ko ma ja waxal booy ne nañ sant yàlla bu baax mu ne ko mbàkke mbooloo bi ne ñu ngi lay sant bu baax mu ne déedéet waxuma waxuma loolu dama yàlla mi leen bind dal leen bu ñu ko ja bu ñu ko jàmmoo dal takkoo leen sawara bu ñu ko mooyee bind àjjina bind sawara bind guddi bind guddi bëccëg bind góor bind bind jigéen bind addina bind àlaxira bind àjjina bind sawara kooku yi laa wax nañ ko jàmm nañ ko sant mu ne ko mbàkke kooku yi ne fare yi ne xamuñu ko yow lañ xam ñu ngi lay sant mu bis ndax moos dama leen doon waaye ta bu leen ci fiir bu ñu ko defaloon ma bàyyi leen moom hmm. bu ñu woon seen kese kooku yi ma bàyyi leen moom ndax euh, seen bàyyi seen bàyyi ak seen maam ya fekkoon fekkoon nañu ko fi te meluñu ñu gën mel ko mënul sant lu boo xam boo xam noonu hmm. waaw waaye waaye yàlla yàlla leen sant lu <laughs> waaw moom mu dégg na moom moom moom la yàlla sant moom noonu la ko déggee moom hmm. bi na ko bu ñu ko defaloon ma ma ma ma bàyyi moom ndax seen maam yaa seen bàyyi fekkoon nañu fi te meluñu ni ngeen mel waaw waaw magal gi day sëñ bi da ko wóor ba mu ñëw mu waxante ak moom ne ko man jaw day yàgg ngeen ma ñaan bis waaye te yéen yàlla jox na ma bis boo xam ne mooy sans bis yéen yéen yéen seen bis ndax bis la boo xam ne bii lépp lu am ci la ko am yéen itam lépp lu ngeen am ci yéen ko am waaw ba tax na mooy bis bi nga xam ne tuwaay lañu ma ci jàppoon am nañu waxoon am na ma waxoon lañu waxoon ñoom mënuñu ci tus man la waxoon ma def ko moom sot coleet sama borom nag wax wax dama may yii may may na may yoxaay ci bis boobu yi booba muy dëndam dëndam bi bis bu desee bis bu desee ci doon déwén mu ful may yopp loolu bayaan ma koy loolu nag ma lot ma lool ci cant gi ma bëgg yéen ñi nga xam ne soo soo soo mbég mooy seen mbég lu ngeen am ci waan ngeen ko jëlee may lu moom ci bis bi laa ko jëlee ma bëgg yéen ngeen jàppale ma ci bis bi sant la ma bis bi waaw sant la ma ci sàmburu sant gi nag lu tàmbalee ci ganaar ba ci gileem lu ci waay di def bu ko tiimee na na taf la ca paaka ba bismillahi tubaab yi fen ngeen la ngeen waxoon mën nañ ci tous sëñ bi moom la waxoon ak borom so def na ko mu sant ci daal leen doole moo waxee bàggal waaw daal di ko nag waaw daa bëgg ku la am na bis <clears throat> yonent bi moo ganu gam tabaski maam suñu Ibrahima moo ko moom man nag bis bii mooy sama bis yéen ñi mooy seen bis nañ ko def na tabaski waaye nag yéen moo gën ci yéen tabaski nañ ko def na tabaski waaye yéen moo gën ci yéen tabaski sëñ ma jëm moom da ko tudde woon tabaski mënu la ko tudde woon mun ñu yëkkati ñu ñu yëkkati moo tax dañu mel ni ko ci màggal waaye tabaski mënu la ko tudde woon ndax muy mu gën ci yéen tabaski leen wax sëñ ma jëm daal koy wax na ko man day mbàkkee da ngaa wax ne sa bis bi nañ ko def ne bisu Ibrahima alayhi salaatu wa salaam man man jaw day maa ngi xamal ne Ibrahima alayhi salaatu wa salaam li muy baax baax du toom ci man gannaaw ndax man man lu ma am ci wàllu ko jëlee kon man du ma wax leen suuf suñ ko tëggalam sëñ bi ko boo jógee nga dem ca Balla Fall Dieng wax ko ko te nekkul na wax fële yëpp soo jógee ñëw ca Balla Fall wax ko ko te nekkul na ko wax fële yëpp ba mu demee wax ko sëñ Balla Fall ba àggal na ko wax ma ko

waaye fekkee ne moom am na ndigal leneen waaye bi sëñ Mourou Moussa wootee bis bi sëñ bi ñëw Touba mu xam ne ñaari bis bu mënta te ndigal loolu moo amoon na ko bu noppi mun a mun ba mu ne cal bàyyi bàyyi ba sëñ Mourou Moussa bàyyi ko fi à 45 waaw te sëñ Mourou Moussa bàyyi ko ba 45 euh, sëñ sëñ Fallou ñëw am juróomi weer ñëw ñëw ñëw Gossas góor gu jox Matar Diaw moo ko doon conduire Matar Diaw moo ma nettali lii. bi ko ko sëñ bi sëñ Fallu bi ko sëñ sëñ ma jox sëñ Fallu ne ma ma wàcc wàcc sëñ bi ci oto bi ñëw na sëñ ma jow sëñ Fallu laa dal mu ne bëri ànd ak man ba ci oto bi ma la koy jox loxo ci oto bi daal di ko sëñ Fallu lenn capacité nga sëñ Bamba arfin bi arfin sëñ Fallu na ko lumu mu ne bis sëñ Bamba bii bis boo ko wootee Touba murid yëpp fekk la Touba dafa na ko yow Touba ngay sëñ Bamba arfin bi arfin sëñ Fallu na ko danaa ko def mu bàyyi loxo ñu wàcc noonu la demee ba sëñ Fallu ba ba sëñ Fallu amee ñetti fan ba dem mu tàmbali waaj moom ñetti weer la ci teg moom nag njëkk loolu daal wax naan yàlla mën na lu ne ba mu des jëli ma fi si ndax sama sëñ ba diggéen na woon moo defagul te dem sama sëñ ba diggéen ma naa ko def def naa ko te lu ma diggéen dinaa kon yàlla mën na lu ma des ba mu waxee loolu sëñ sëñ Fallu ba sëñ Fallu dongoon teg moom loolu nag ba sëñ Fallu génn demee rek la tàmbali waaj moom ñetti weer lañ ci muy tam 46 mu dem ci 46 47 sañ fa woote ko tubaab gi noonu la magal gi demee bi yàlla dugalee itam eh, sëñ Tuba woo ñoom mag ñi ne dama bëgg ngeen di xam jàkk yi njëriñ ñoo ji jàkk ñoo ko def ji waaye jàkk leen waxoon bañ génne ñoom mag ñi ñu dajaloo ñu doon nañ fal diw sëñ saa yaay jël marcel bi sëñ moo tax yaay yor dongo yi nangam ko ne ñu yaay dafa nangam yaay nangam bañu àggalee sëñ Issa waa léegi masal bi xaa kenn ku jël ay loxo léegi da ngeen sas wala woo sas leen kenn ku ne sas ba ma sas ko ñun bisimilah ñu daal di ñu daal di andi ay carnet ñaan bindu ma junni ñaan juróomi téeméer ñaan ñaari junni eh, di ko def ba ñëpp bindu sëñ sëñ sëñ bi doon ci rek sëñ Issa ne ko yow naka naka mu doo mu ne ko ah, man li ma li may gis kenn ku bind mu ne ko kon nga wax ko mu ne ko ah, mën naa ko wax la ay kenn ku bind ñu ko bisimilah waaye doo ay sas wala ma sas la mu ne ko man maa sas sama bopp

loolu firndeel na ko ci lu bare bare bare bare ndax yónnee na ko addiya joo xam ne ñaari ñaari ñaari góor jox ko taalibe bu ñuy wax ku ñuy wax Cheikh Sarr ak ku ñuy wax Abdou Diaw waaw wax sëñ bi na ko makkantu ala yadda Abdou Diaw wa mahawa bu nuyu ko biir yi Cheikh Sarr Diaw ramaka tey ni aw biir sanu tey ni li yosilahuma ilayka addiya tey ni way ni jaaltul yow ma وبركتك هي المرجو ومراتك هي المنهو جميعهما جميعهما ملكته يدي ملك مجاز على يديك الكريمتين المالكتين ملك حقيقة جميع ما في أيدينا على الإجاز loolu loolu bu mujj bind ci leetar boo xam ne ak li ñu laajal wala ko ne ko nun ma def naa def naa tey jii lépp loo xam ne lu ma sama ñaari loxo yi moomati yàqu moom waaw tey nun ñëpp lépp boole si loxom yow moomun ko yëmu yàqu moom loolu bokk na ci ay ay ay moom sëñ bi la jox joxoon léppam waaw sëñ bi la joxoon léppam ci joxaanam di waxaan da ngeen yéexe bamba nun nu bamba ku yéexe bamba ñee ku teele bamba da koy joow ci kaw waaw da ngeen yéexe bamba nun nu teele bamba ku yéexe bamba ñee ci ak ak ci ci ci mag ci ndaw la dem ci ci ndaw la dem ci وانا قصحتي اي بيت وانا قصحتي اي بيت وانا كنت يرى انا مملا من جيش خاب فيه ما مر من جيش خاب فيه ما مر سنة إلى وجاد ما يخل الأواهج لي وقبله كنت محو كالوليد له ألف بألفين سبيا إن دي هلتسالي جاكم نبجي جيجي أنا ومم نك سبي سبي موي كوم أمكو أمكو أمكو كر بلور بلور جاخلي بلور بلور بخوري لبلاكو noonu la mbir mi nit ñi moom la ñuy wax rek te li ñu wax xamuñ ci dara waaw waaye sëñ bi moom ñi ñëw ñëw waaye caaxaan andiwul ci ñoom ëpp na nga xamante wala noonu ci ñoom lu leen andi ci ñoom mooy marta bu leen yàlla defal moom lañ moom lañ ñeet ba ñëw ci sëñ bi waaw loolu rek kenn ku la nga newoon nag loola li moom ci xam-xam la nekkoon ba ñëw waaw xam-xam baa ko ne demal demal ka ko doon demal jàngi sax moom moo ko ne demal seen sëñ bi noonu loolu demee boo boo mag mu ne it boo boo boo boo boo xool boo gëstoo mu wax la ko ni sëñ bi lu mel noonu waaw journal loolu itam mooy loolu suñu wax ne kenn ku ba kenn ku ba ba ba mi tur yi bi ñu ne ci seen téere bi booba kenn kenn kenn ñëw ko kenn ku ne ma mënoon naa la bind la si tur nekk si bay ba nga ñëw ba nga ñëwee loolu leer na jàng noonu nañ